Digərək jamdayi jafe Dundu dine mogan jafe Bul hadi mukunem sodare Mursaycar yuyanim bare Sen jafe bakhlaw jise أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بك جلد تديني tedd yi ñuy seetaan ginnaaw bu ñu santee borom bi mu ñu koy sottil te nga xam ne buñ ko jéemoon a duñ ko mën a matal di julli ci sangu sang yi sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ki yàlla yónni mu ñëw di yërmande ñeel àdduna di julli ci ay saxaabam ak ay waa ak képp koo xam ne yaa ngi roy ci sunnaam di xeñtu njubam ba yàlla di taxaw ginnaaw loolu ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen di ñaan ci borom bi subhanahu wa taala yàlla nañu yàlla boole defal jàmm di leen ndokkeel nag ci weeru barkeel wii ñu nekk weeru koor so ramadan al mubarak ramadan karim ramadan di shahru rahmati shahru xufraani shahru tawbati shahru saati shahru maxfirati shahru kullu xayr shahru kullu xayr weer bi nga xam ne ku ci jéem a wax da ngay wax ba sonn rek bàyyi ndax weeru yërmande la weeru barke la weeru ndimbal la weeru xéewal la borom bi subhaanahu wa ci mbaaxam ci far bi nga xam ne faral na ko xeetu yenent bi sallallahu alayhi wa mu defal ñu ay ay jaamu yàlla yoo xam ne dafay ñëw diggante saa ak saa maanaam jullit bi moom comme ni ñu ko comme ni ko yàlla waxee ci alquran waxoon ko yenent bi sallallahu alayhi wa te mu engagé ñu ñun ñëpp mu mu jëm ci ñun ñun ñëpp muy waabud rabbaka hatta yaatiyaka al yaqin jaamul sa boroom ba dee di la dikkal waaye ci biir jaamu yàlla googu yàlla daf ñu baax baaxee ay xéewal lu mel ni weeru koor lu mel ni yeneen xéewalu ah, jaamu yàlla mun nga ci tudd lu mel ni bésu arafa mun nga ci tudd lu mel ni euh, fanu tëbaski ñetti fanu tëbaski yi maanaam yàlla daf ñoo defal benn weer weer bi di weeru koor defal ñu ay fan yoo xam ne fan yu muy ful jaamu yàlla gi la nga xam ni yàlla ci mbaxam sa yo ko jaamoo sa yo defé lu bax mom da koy ful non la non la mel non lay doxale kay ay waye wéru kor nak bu ñëwé lam doon ful da koy doubler diko doubler ba mu ne wallahu yudaif liman yasha yàlla moy doubler ku ko neex ba tax na dam koy doubler mom rek moko xam kon wér bobu nga xam ne sha allah teruna ñu dugg ci ñu ngi leen ci ndokkel ndokkel suñu bop di ñaan borom bi subhanahu wa taala yal nañ ci yàlla defal tawfiq defal ñu ci jàppandal may ñu wér may ñu ay xéewal yu bari ba weeru koor bi ñu am ci li nga xam ne mooy ngërmande yàlla waaye tamit am ci tam li nga xam ne mooy ndogu yi ak xëdd yi ak rawatin ndogu yi nga xam ne dañ ko war di bokk ak suñuy mbokk jullit même ñi am rawatina ñi amul rawatina suñu mbokk jigéen yi nga xam ne eh, waxtaan bi eh, ñoom lañ ko adressé nga xam ne am na ñu bëri am nañ habitude boobu di leen ci gën a ñaax muy di togg ay ndogu di defar ay ndogu ay kafeek ak kii yi muy àndal di ko yóbbu ci jàkka yi di ko yóbbu ci place publique yi sax di ko yóbbu sax ci mbedd yi pour ñi nga xam ne ndogu da leen di fekk ci yenn place yoo xam ne nekkuñu ci seeni kër ñu mën a jot ay tàndarma ak i xéewal yoo xam ne dinañ ko dogee te Yonent bi sallallahu alayhi wa mu ne képp ku dogal ku wóor da ngay am tiyaa baam moom te du wàññi dara ci sa tiyaaba loolu yàlla rek moo ko mun subhanahu wa taala kon ñu ngi leen ci ndokkeel di ndokkeel suñu bopp weer bi nag nee nañ fukki fan yu njëkk yi yërmande la li ci dëgg bi di xeew euh, xufraan yu mujj yi di euh, itqun minan naar maanaam gore ci safara kon comme niñ ko waxee weer la boo xam ne borom bi subhanahu wa dafa santaane comme ni ko yénite bi daan dundee nit ki lépp loo doon def ci lu baax ci avant weeru koor bi bu weeru koor bi ñëwee nga gën koo yokk boo doon jàng al alquran ci weeru koor bi ñëwee yokkal rawatina suñu mbokk jigéen ñi nga xam ne desan dañuy am ay ay ay liggéey ay occupation yoo xam ne dañ ciy nekk euh, loolu tam di jaamu yàlla waxoon nañ ko li ci suñu euh, émission bu njëkk bi jigéen bépp jaamu yàlla maanaam bépp nit ci boppam bépp liggéey boo xam ne yaa ngi koy def ci sa dund rek bu fekkee ne xam nga sa boroom xam sa diini liggéey boobu day mujj di jaamu yàlla rawatina jigéen jigéen yàlla daf koo defal ay jagle par exemple jigéen bi nekk ci biir këram nekk ak boroom këram nekk ak njabootam war a xëy suba teel jàppale boroom këram ci mu xëy war a liggéey war a jàppale ay doomam ngir ñu dem jàngi war leen a toppatoo bu fekkee ñu ndaw lañ mu toppatoo leen seen ndékki toppatoo leen seen ceeb toppatoo seeni bagage ba ñu dem ci demin bi gën a rafet su ko defee loolu jamono ba mu koy def en tant que jigéen jullit na fexe rek na na yéene bi nag ñëw ndax waxoon nañ léegi ne bëri na ay jëf yu nuru jëfi àddina te fekk jëf yooyu yaa ngi ci nar am ay ay pay yu bëri àllaaxira te fekk xam nga xëy toppatoo sa jëkkër sang sa doom toppatoo ko mu dem dafay nuru jëf yoo xam ne aada la dafay nuru jëf yoo xam ne euh, obligation la boo xam ne maanaam kii jullit da koy def kii dul jullit da koy def waaye jullit bi su ko defee jiital ci yéene xam ne lii muy def yàlla moo ko ko sant xam ne lii muy def jaamu yàlla la daf ci am pay bu rëy ci borom bi subhaanahu wa taala kon rawatina tamit jigéen ji nga xam ne mu ngi ci waañ bi wala sax mu ngi ci fóotukaay bi wala sax mu ngi ci yeneen i liggéeyam ci liggéeyu jigéen di ci ni suñu papa doon wax yal na ko yàlla yokk yërmande di alhaji Mouhamadou Amine kan dafa doon faral di wax ni bu ngeen nekkee ci waañ yi di togg wala ngeen nekk ci fóotukaay yi di fóot wala sax ngeen yor bale sax di bale kër gi maanaam daal ci gàttal liggéey bu ngeen munti nekk di ko def en tant que jigéen di liggéeyu jigéen ci biir kër gi loolu ba mu jaar ci seen diggante ak tudd yàlla loolu sax na ngeen koy def bolé ko di def ay astaghfirullah yu bari di bale di wax astaghfirullah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa allah wallahu akbar muy ñent kàddu yo xamne kàddu yëpp yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallam ñent kàddu yoy mo gënal borom bi subhanahu wa taala te kàddu yoy fo munti nek ak lo munti nek diko def diko ko liggéey mën nga koo booleeg sa liggéey jàng alquran fekke ne yow jigen bi amo jot yaa ngi ci waañ bi di togg yaa ngi fóot yaa ngi toppatoo xale yi ba xëy na amoo jot bu bëri pour toog jàng alquran sa téléphone bii mën nga ci télécharger ay jàngkatu alquran yoo xam ne da nga déglu alquran mun naa ne vingt 24 heures sur 24 su ko defee ànd ak yéene yàlla gis la xol bi xam ne yow boo amoon jotu toog jàng alquran di nga toog jàng waaye li nga amul jot sax yaa ngi koy déglu ci. li nga xam ne mooy rajo yi waaye bu ñu waxee nag déglu ci rajo bi wala déglu ci téléphone firiwul mukk ne dañ laa may ngànt ba doo toog jàng alquran déedéet ak loo ñàkk-ñàkk-ñàkk jot yow sama sœur yow sama jigéen juróomi waxtu julli yi moom xam nga ne mën a koo ñàkkal jot di nga julli fexeel ba boo jullee ba sëlmal kam jëlal sa téere alquran wala boog sax nga toog ci place bi nga jullee nga jàng lenn ci aaya alquran yi pour fas yéene koo jaamoo sa borom loolu jamono ju nekk nga ko war a def mais rawatina nag ci jamonoy weeru koor ndax weeru koor weeru alquran la eh, nettali nañu eh, imaam Buxaari nettali nañu nee na yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bu weeru kaar weeru koor bu teru woon nee na dafay gën a mën a joxe ba raw ngelaw buy ëpp maanaam day gën a mën a saraxe day gën a mën a joxe ndimbal day gën a am jàmm doonte kenn ëpp ko woon jàmm ndax ba ñu laajee naa Aïcha yenent bi nan lay nekkee ci biir këram dañ ne daxaak bassaam dafay kuy ree la kuy muuñ la waaye kuy jàppale waa këram la ci liggéeyu kër mu ne bu waxtu julli jotee mu mel ni xamuñu mu daal di bàyyi lépp dem julli ji kon boo nekk ci sa biir kër tamit di liggéey di toppatoo sa borom kër fexeel ba loo ñàkk-ñàkk jot sa juróomi waxtu julli moom saa yoo ko jullee na nga toog nga jàng alquran donte ne sax 10 minutes la donte ne gën na koo tuuti wala gën na koo bëri ndax nag mooy faj xol yi alquran nee nañ xol yi day dem ba xomaat te ba ba muy ba ko bi waxee sahaaba yi ne ko xol yi bu xamaatee lan moo koy raxas ba mu set mu ne tudd yàlla ak istixfaar tudd yàlla nag moom bu ñu ko waxee bi ci jiitu mooy jàng alquran kon suñu mbokk jigéen ñi loolu ñu ngi leen ci loo xel ak naafila salaatu tarawih loolu tam jigéen ñi nañ ci bàyyi xel da ko def ci kër yi buñ ko defee ci jàkka yi tamit dara nekku ci kon dafa mel ni euh, foofu la ñuy yemale waxtaan bi incha allah ba ci beneen waxtaan bi incha allah ñu fas ne continuer ci jaamu yàlla jigéen ci biir weeru koor incha allah